lu doy waar moo am ca diwaanu Thiès tiital sax askan ba fa nekk foofee nag ba soxna buy wuyoo si turub Mariam Diagne ay atam toll si ñaar fukk ak juróom la ñu daal di faat gannaaw ba ñu ko bojjee paaka loolee nag juróo tristesse ak désolation si ay jegeñaaleem ak i mbokkam waaye tamit si ay dëkkandoowam ya nekkee foofee ca wetu lycée Medina Fall ka ko faat nag moom moom Mariam Diagne daa dugg rek si kërub Diagne yooyee par effraction ngir def jëf ju ñaaw jile. bu ñu sukkandikoo si témoin bi nga xam ne ni moom moo tee sax waa ji daw ganna ba mu fàtte soxna Mariam Diagne ba noppi mbirum xaalis rek moo sabab bile mbir ba loolu weesoo nag waa jooju naka ngeen di gis ñu jeng ko moom moomee mooy ku jël rek kii di bakkanu ba soxna Mariam Diagne moom nag jot naa expliquer sax ni Mariam Diagne daf ko yoreel xaalis moo tax rek mu def li ni mel waaye mu nekk ci ay loxo ba élément ya nekkee ca commissariat central bu Thiès